di ci ak Alaaji Ahmed Aidara bismillah waaye suñu politiciens yi ah est-ce na xam farata looloo jar a laaj termine yéene kaay ne débat ba kan mooy nekk na njiital opposition boobee waaw gaa ñaa nga waaye ña nga xam ne nag maanaam moom la président Macky Sall mi la yónni day Idrissa Seck la ñu basel la ilaha illallah siku ndiig siki nduig ne jinne jommal na la sur quotidien ne Macky Sall kay waaw nee nañ ko waaw moog waa këram majorité ba maa la ko wax enquête yéene kaay ne waaye opposition bi ak noonu na li gis nga njiital opposition boobee duñ ca yey duñ ca yabi duñ ca wax sax déedéet président Sall kay bataas bu tàng bi nag léegi moom ko jox kay maa xam ne nag ñoo ànd ak président Macky Sall day Idrissa Seck kon la ñu ba daa bañ de déedéet kay laaste moom président Macky ah ah léegi nag il a l'obligation na tànn de termine yéene kaay ne de góoma de Benoît Sambou ak maître Ousmane Seye waaw nee Sénégal ci boppam kon ci régime présidentiel la mënuñoo sukkandiku nag ci ay résultat wu élection député législative waaw naan dañuy tànn na kon jiital opposition boobee yéene kaay dee média gi boo bëggee dégg dëgg daal a Seck day dana doxal de ma nga ngir jiite opposition bi maa ko wax leesi ko yéene kaay ne nguur gi kay Idrissa Seck la ñu votel waaye société civile ba nee nañ du ah, ñu bëgg sukkandiku nii waaye léegi ki jël deuxième élection présidentielle boo leen ko defee njiital opposition ñu dem juróom benn weer dëgg ay élection député waaja jël quatrième waa léegi nu muy demee ñu dem élection maire locale gars raw ko waa day continuer yomb transhumé waaw bàyyi partem dem fa ca des day daal di ñàkk nag ndomba tànk ba loolee nag lañ bëgg indi ci maire yi koo xam ni kon ab liste la def maire boo transhumé waaw daanu nga ñàkk nga poste maire ba ci Vox Populi nee na gis nga dialogue bi nga gis nii ah ay mbirum caaxaan lal ko ci wàllum politique mbirum caaxaan rek la dëgg la Le Quotidien yéene kaay ne élection yi day waaw Aly Ngouille li muy xeeñ too ko ngur mun nii ci ak ko lañ jëm de reporté a processus bi rek ca jamono joo xam ne nag ñoo politiciens yi kon ña ngi ca seen débat yooyee waaw askan wi day ñu ngi ci biir ndox mi paccax-paccax yi cay wàllum inondation ngi dee ubbil évidence yéene kaay mu nañu Kaolack inondation Ndar inondation Guédiawaye inondation Pikine inondation Ziguinchor inondation dama ne la te inondation den bi dee waaw wàllum télé inondation denk compétence ñiñ denk gox yooyee dañoo télé waaw waaw te xoolal la ñuy doon wala ñoo xam ne kon dunu nam dara ndaataatalak gundaa ndaatang indi benn ñëwee kon ci wàllum inondation ak jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la askan wi dund ni la dëgg la nekk ci biir ndox mi kon di pacax-pacax allahu akbar Mariama Sarr Abdoulaye Baldé Mansour Faye Aliou Sall Abdoulaye Timbo boo leen xoolee nii ña nga seen donxaa siga nice good fine waaye boo demee fa ñu jiite askan waa nga ca biir ndox ma kon di pacax-pacaxi laa la wax inondation waaw le témoin yéene kaay ne ngir xeex nag wàllum inondation yooyu waaw ndox Eh, gis nga 2012 waaw moom président Macky Sall kon ab programme la taxawloo nee na pour jëlee fi a laaj wi kay mooy ana xaalis bi da ti de question loolooy laaj wax dama ne la ana man de Mansour Faye laay tuumaal wàllum ger ak mbirum parparloo ar di taali ar ci source ané maa leen wax te ñun nag dañoo am ay firnde yu leer ay preuve ne Mansour mi ne daa tax ëppalaw corona ga cay li libération yi ne kaay ne gis nga corona joojee waaw démb day kenn deewul alhamdulilahi rabbil alamin professeur Moussa Seydi ci la solo yéene kaay ah ne dee teel na de bu ñu teel a bàkku de bu ñu teel a de ne am nañu ndam teel na waaye màggal Tuubaa ren gi lee dana am wala du am Aly Ngouille Ndiaye ci la témoin yéene kaay ne gis nga màggal gi daal boo leen bëggee dégg dëgg mbiru muruti rek ministre de l'intérieur de Aly Ngouille Ndiaye ci bi nga xam ni kon moom la jël ak nguur gi wax nañu ko ba pare yegg nañu ko léegi nag lépp a ngi ci loxoom te mbirib diini daa sensible Aly Ngouille Ndiaye may wax samay kaddu dee sur sa ay kaddoom waaw nee na xale bi nga xam ne fukki at ak ñeent rek la am tantam bi lay responsable Benno Bokk Yaakaar ca Touba waaw yegg ca kawam ah procureur dugg na laa ilaha illallah libération kaay ne xoolal ma Awa Diouf mi nga xam ni kon moo rey ëmbam mi dama cee rus dama bàyyi ba muy xool ndox mi tàng na tàngul ca duus ba falaa ko xoje allahu akbar kooku de ci yoon rek enquête yéene kaay ne waa yaana maar day dañuy yóbbu police bi lé ca yoon aa waaw waaw exclusive yéene kaay ne maître Moussa Diop day digg ginnaawam gi tàngoor gi jeexagul de déedéet termine yéene kaay ne dëgg la parce que nag am na ci ay rapport administratif yu bees yoo xam ne day ma ngay taxal maître Moussa Diop ñu ngi koy xaar direct news ne sphère ministériel yee nekk ca jam ñaajo day waaw ak maison waaw ñaari téeméer ak juróom fukki milliards daar ñoo ne may waaye wandil moo dox ci diggante Madani Tall ak Karim Fofana ah, waaw waaw la entreprise en vol moo gagné marché te amul expérience ci wàllum tabax eh way Samba dama la entreprise boobee en vol waaw ñetti ña nga xam ne ñoo nekk ca kaw yëpp ay hauts fonctionnaires lañ woon Madani Tall Mokhtar Thiam ak Aminata Niane nga xam ne léegi nag ay homme d'affaires pire lañ le quotidien yéene kaa ne en tout cas soleil day waaw neexul de njaw laa ngay wéedu de soo xam ne diggante yaa xam mbay ak jéemati Fall mu waay waaw directeur ba nam ko fay sonale ëpp na mardi taali aa ah. la mu fay dund daa miti dama ne loolee jigéen ñi kon di dund ci biir média yi la simbiq si ci boppam kon di naqarlu rawatina soleil ak APS yéene kaa gi ne mais xoolal ma APS loolee yàggul sax maam yaay Fatou Diop ak Fatou Diop waaw nga xam ne kon dañ leen a dàq def ci mbirum maa ndax dañoo porté plainte rek ba ay eh way samba critique yéene ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali gis nga presse sénégalaise bi la waaw a corona gi ah nañ corona de mbir mi miti ne ci ñoom lool dama la ci ñetti weer waaw presse bi perte na lu tolloo allahu akbar la ilaha daanu gu miti sax soixante-dix pour cent télévision yi ñoom daanu nañu téeméer boo jël juróom fukk ak ñeent ne ras mu